أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi fas yéene def benn jaamu yàlla mooy ñu dajaloo tey jàng benn àtte ci àtte yi islaam yi mooy ku fi bàyyeekoo jullit bu fi bàyyeekoo naka lañ koy waajale dars bi passé bi iznillahi tabaraka wa taala xam ngeen defoon nañ taqdim depuis feebar ba sukuraat ba faatu foofu lañ ko yemale woon tey la ñuy fas yéene eggali li des bi iznillah bu nu yàlla dimbalee ku faatu lan la islaam wax ci yow naka lan la war a waajalee ba yóbbu la ci sa borom loolu nag sunu déggee nit faatu na ba nu jël ko yóbbu ko ci morgue bi dafa am ay mbir yoo xam ne ki koy ñi koy waajal di ko defar mbir yooyu lañ war a am danañ ko teg benn par benn bu ci njëkk mooy ki faatu ñetti nit ñoo lay sang kon war naa am fii ñaar ñu ñëw jàppale ma fii am na benn mbokk bu waxoon ne moom mooy volontaire bi bismillah buñ ñëwee mu dimbalinu ñu jàngal nit ñi ci moom est-ce que ñëw na ñëwul kon kan mooy ñëw tëdd fii bismillah am na la yàlla fay bopp bi na nekke ni bopp bi na nekke ni waaw mu ngoog alhamdulilah jazakumullah xeer kon ki fekkee nit faatu li ngay njëkk a def ba fekkee nit ku faatu comme nii mooy wàcce bët yi tooyal loxo yi wàcce bët yi ndax bët yi bañ a xippeeku beneen bi nga ut morceau comme morceau bu mel nii nga takk fii fii nii takk fii pour lan lu gémmiñ gi du ŋaam jël loxo yi ñaar yi def ko nii ba mu nee takk fii baax na wala nga takk ñaari baaraam yi mag yi nga dajale tànk yi def ko nii takk fii wala nga takk ñaari baaraam yu mag yi léegi kon nii lay mel ku fekkee ku dee lii nga war a njëkk a def ci moom mooy defar tànk yi defar loxo yi wàcce bët yi takk fii pour gémmiñ gi su fekkee dañ ko war a denc war a fanaan ñu jël dara lu xaw a diis teg ci biir bi fii mënuñu tibb suuf teg ko ci benn sagar lu mel ni kilo suuf wala ñaari kilo wala ñu lu xaw a diis tuuti rek ñu teg fii ci biir bi pour lan pour biir bi du jóg kon lii mooy lu njëkk léegi bu fekkee dañoo xëy di ko defar wala ñu ñëw ci ngoon di ko defar war na am ay bagages yu ñu am pour defar lu njëkk war nañoo am ñetti siwo yu ñuy def ñetti ndox ñetti siwo lañ war a am ñetti siwo yooyu ñetti ndox lañ ciy def kon am nañ benn siwo am na ñaareelu siwo am nañu ñetteelu siwo kon am na ñetti siwo yu mat na war nañu am saabu ordinaire war nañu am jàmpe war nañu am gant gant yi nga xam ne kii sang moo koy sol fekkee ñett la ñoom ñëpp ñu sol gant fekkee juróom la ñu sol gant war nañu am masque ki ñuy def seen bakkan war nañu am eau de javel war nañu am ñaari serviette dañu am ñaari serviette serviette yaa ngi nii war nañu am siddim war nañu am parfum nekku ci biir waaye dañoo fàtte parfum bi ko war nañu am parfum waaw am nañ benn bu représenté baax na am butéel parfum war nañu am mbalaan bi ñuy sànge ku faatu ñaata mbir lañ am waaw ma ci laa jëm war nañ am coton war nañ am witteen xam naa yooyu ñi ñi amaana xëy na ñi ñu waxoon ñoo ko indiwul mais buñ mu nee génn léegi jëndal ñu coton moo gën ñu ñu jëndal ñaari mbuusu coton nañ am coton kon am nañ ñetti siwo am na nu saabu am na nu njàmpe am na nu gant am nañu gants yi am nañu parfum am nañu masque bi am nañu eau de javel am nañu serviette am nañu siddéem am nañu mbalaan incha allah coton baa ngi ñëw léegi am nañu yi siwo yi luñ koy doyee siwo bu njëkk bi ndox lañ ciy def ak eau de javel ah ñu teg ko côté siwo bi ndox kese lañ ciy def boo xamante ne amul eau de javel amul dara ndox bu set wicc siwo bi ci def ndox ak parfum léeg-léeg ñu dëbb si dem bi def ko ci léegi mu nekk ñetti ndox yoo xam ne bokkul du noonu waaw ma njëkk siwo yi ne tegal noonu siwo yi mu ngoog kon ñu delloo bagage yi gis ngeen bu ñu ñëwee di sang néew bi ki koy sang li muy njëkk a def mooy sol ay gants ba loxo la ñuy njëkk a sole ah kaana yujibuhu ana ñu doon jàng si riyaadu saalihin ana ñu doon jàng riyaadu saalihin kaana yujibuhu atayaamun fi kulli shay ñi sang néew ñii sang ñi ñii sol gan waaw dina baax waaw yëkkati ma loxo boobu yi gis ngeen suñ ñëwee niñ ko fekkee muy tëdd mu tëdd yi njëkk a def mooy tekki fii tekki fii tekki fii ñu jël benn serviette bi afan kii woon ko war a jël moom it balaa waa ji di def dara balaa gaa yi di def dara mooy ñu defar masque bi def ko nii lu tax ah nii waaw kon baax na léegi daal la ngeen xam ne dañu war a sol masque teel suñ solee masque mun nañu taal benn andi cuuraay def ci cuuraay tuuti ndax fekkoon ni néew bi dafa am xet buy génn ci moom cuuraay bi gooyo bi changé odeur morgue bi comme dañoo war a simmi yére yi waxoon nañ ñaara nii ngay def nii lañ koy def suñ koy simmi lii la ñuy njëkk a def ba pare balaa ñuy simmi yére yi ndax kenn du sang néew di gis ay awra pour ñu simmi yére yi lu soxna lu yomb la loxo yi la ñuy yëkkati waag mbubb bi ah daal di génne par benn bul simmi daal di simmi benn bi ndeyjoor bi après simmi càmmoñ bi mun nañ bañ a xotti yére bi yére bi mun nañ ko dindi normal ah après waa ji dugal loxoom fii fekkoon dafa takk ceinture wala dafa takk ñoor mu daal di tekki bu ko tekkee ba pare am ku taxaw fii daal di xëcc ndànk-ndànk ñu daal di génne lii moo fi nekk kenn du gis kanamam saaf simmeeku na kon lii moo fi nekk lii fii lay nekk ba sang bi di pare du fi mus a jóge lii fii lay nekk ba sang bi jeex kañ lañ ko fiy génne bu ñu indee malikaan bi di ko sang da fiy jóge mu wokk tekkil fii ok baax na kay dindi lool waaw kon lii fii lay nekk du fi jóge ba sang bi jeex nii lañ koy def nii moo tax dina nekk lu doy waar yenn saa yi nga dugg ci morgue gis néew bi ne dum gaa yi wër ko loolu dafa ñaaw sax kenn du ko def ku xamul diine rek mooy def loolu nii lañ koy def sang ko ba pare awraam du fay du mus a fay ki koy sang du ci mës a teg bët léegi première ndox mooy ñëw mooy bi am moo nii jël eau de javel bi daat ci def ah def ci ndox lan mooy ñëw saabu ak njàmpe bi moo ngi nii bu waaj buñ ko sottilee ndox ñëwal sotti ñëwal mel ne ku may sotti tuuti ak sa loxo ñaamoon pot dina baax waaw mu ngoog moom day mel ne kuy sotti su defee ba mu tooy ordre de banque ci boobu saabu bi commencé bopp bi la ñuy tàmbalee bopp bi la ñuy tàmbalee yëkkati bopp bi gis ngeen ah kii mooy ñëw yëkkati ngeen xool sama loxo fu ma koy teg lii laa koy def pour ndox mi su may sotti ndox mi du dugg ci gémmiñ ngeeg bakkan yi ma commencé raxas bopp bi ak eau de javel bi sang di ko raxas ah ak eau de javel bi ba continuer di raxas génne loxo bi yépp ak eau de javel ah waaw amul kii ndox la rek dañuy raxas di dem sang la bii sang kese la dañuy dindi tilim bi ci nañu continuer continuer continuer ba mu egg ci tànk yi ah noonu lañ koy continuer bu ñëwee fii nit ñi dañu ne waaw fii naka la ko waa ji di sangee yaa def gaa yi téye dugal sigal du mus a jóg ah chaque jour gaa yi ngi contrôlé ñiy dimbali kii sang continuer noonu ba tànk yi jeex ñu daal di éliminer ndoxum ordre de javel bi ak saabu bi teg côté yi bokkatuñu aha kay dañ ko wëlbati suñ koy wëlbati foofu dafay yomb ni dañ koy wëlbatee day jël tànk bi teg nii jël loxo ndeyjoor bi ah jël loxo bi bàyyi ko fii bii lay jël xoolal su bloqué fii rek mu wëlbatee ko mu raxas fii ginnaaw gi mu raxas ko ba mu set chaque jour sër baa ngi fi kaa ngi koy contrôlé suy suy delloo wëlbati bi pour wëlbati waar beneen côté c'est simple tànk bi lay jël wàcce mu wàcc mu jël bi teg wàcce loxo bi génne bi acca mu daal di bloqué wu gis nga mu wàcce sër bi raxas même fii bu fekkoon ne dafa yor jàmpe bi di ko raxas nii lay def gis nga di raxas pour ma bàyyiloo xel leen fii mooy néew bi awraam kenn mënu ko gis kenn waru ko gis am na ñaat ban ban sang ñaata sang la ñam benn léegi nag mu des beneen dañuy sotti ndox boobu boobu dañ saaw bekki bi dañ ñu indi beneen siw siwo bi ban la bii mooy siwo sang set bi nag léegi nag la ñuy doog a def sangu sang néew bi waaw bismillah waaw bu fekkee bu fekkee dafa am luy génn ci moom bu fekkee ne li mu wax noonu dañu ñëw gis néew bi am na luy génn ci moom balaa ñuy sang ñu ko simmee ba pare ah kee day jàpp fee mbagg yi kii jàpp tànk yi kii def nii xaw a bës fekkee ne am na lu ñu génn ci moom su ko defee lépp daal di génn benn yoon bës bës bës ba mu jeex tàkk ñu sotti ndox mu daal dem ñu doog a commencé sang bi ñu doog commencé sang eau de javel bi boo mooy jëkk chaque jour ak saabu bi saa yi fekkee ne am na luy génn ci moom rek bu ñu gaaw sang yi def ndànk bés bés ba lépp génn ba jeex benn yoon moo gën ñu dem ba ca nit ña mu fay génn bu fekkee da doon tox am luy génn ci moom ay yuur wala póon am na bu fekkee Sénégal dañ koy dëpp non non kenn du ko dëpp nii la ñuy def dañu jël benn morceau jël tànk bi def nii jël mbagg bi daal di jël lii bloqué ko fii mu def nii mu jóg fii day jóg ñu bloqué fii affaire bi bu defee kii di génn fii day kawe lii di génn waaw noonu lay def ñi lay def nii kenn du ko dëpp fekkee dañoo fekk muy tux gémmiñ ngi am lu ciy génn noonu lañ koy def su fekkee biir bi moo am lu ñuy génn dañuy bës biir bi ndànk ndànk ndànk ndànk li ci nekkoon yëpp génn bu jeex bu fekkee jigéen bu ëmb la nag kenn du bës biir bi bu fekkee jigéen bu ëmb la kenn du bës biir bi ndax boo ko bësee biir bi luy xew doom ji day génn jigéen boobu kenn du bés biiram ku ñu bés biiram mooy koo xam ne xam nañ ne biir bi dara nekk ci te gis nañ ñu am na luy lu doon waaj a génn wala am na luy génn ñu def ndànk-ndànk loolu daal di génn jeex ñu daal di sang première sang boobu nga xam ne mooy sangu rek set pour yaram bi set eau de javel bu fekkoon dafa am ay maladie yu ndaw ndawaan yu war a wàlle maladie bi mu daal di waa daal di dañ ci yaram ñu indi léegi nag ndox bu set bi buñ ñëw li ñuy njëkk a def mooy waaw sot jëla gutu bi ñu raxas loxo yi comme ku koy comme ku koy jàppal raxas ba mu set wàcce fu ñuy ñëw fii commencé waa ji di sotti ñu raxas di tàmbalee jumbax bi raxas loxo yi day dugg gis nga loxo bi day dugg ci biir ah bu fekkee sër bu xaw a oyof la sax waa ji mun na boo mbaalee li sër bi di yóbbaale yaram bi quoi mais bu fekkee sol nay gant bu fekkee solul ay gant mun na bomb nii ci kaw loxoom bañu def contact ak deru néew bi bu fekkee nag sol nay gant mun na dugal ay loxo di di raxas contrôler loxo bi chaque jour day jàpp kii di sotti ba ñu raxasee fii ba mu set ñu jàpp jàppal ñu raxas fi benn ñëw ci bopp bi fii su boobaa dañuy indi witeen jox ma witeen fii suñ koy raxas suñuy raxas kanam gi dañuy indi witeen daj la waa ñu lay def bët yi raxas ba mu set mu sànni ñu jox ko bu bees def bakkan yi sànni ñu jox ko bu bees gémmiñ gi mu dugal bomb gémmiñ gi ba mu set day dugal ci biir.
waaw da koy dugal ci biir witeen bi day tooy.
ci téem bi dañ koy tooyal dugal ci biir ba mu set bakkan yi ba mu set bët yi ba mu set nopp yi aywa sëlëm sëlëm raxas commencé raxas bopp bi ñuy sotti raxas bu fekkee ne rek raakool lañ ko tiimale chaque jour day bàyyi xel dafay bloqué fii balaa ndox mi dugg ci bakkan yi kii bi après mu commencé ñëw ndeyjoor nag ndeyjooru néew bi lay jël ah fan mooy ndeyjooram mu ngoog mu commencé raxas raxas ci biir nii ci kaw bañ dem ba conc ba ñu wëlbati comme d'habitude del tànk bi def nii raxas ah gis nga muy dem ba ci tànk yi ñu ñëw sotti muy raxas yëpp mu ngi ndeyjoor ah ba ndeyjoor bi jeex mu wàcce ko daal di ñëwaat càmmoñ tàmbali comme d'habitude raxas moom tamit ah chaque jour bu ñëwee fii même bu dee ñoom ñett yi ñoo fi nekk sax sarbet bi fii rek lay nekk ah raxas raxas ba mu jeex ñu daal di koy teg léegi bu ñu ko tegee nii raxas na ñaareelu raxas jël siwo bee delloo indi ñetteelu siwo bi siwo bi moo am ndox bi indi butal parfum bi waaw àgg na um na wa ci sànki
raxas bi mooy yóbbaale kii bi rek.
moom moom yóbbaale ñaar waaw.
loxo yi benn bi.
non non gis nga bu sotti dafa doon wax problème mu njàpp bi mu ne ko bi ñu koy sang ñu jàppal nañ ko bare ñu ngi koy sang léegi fi ngay def ndox kii ngay def fi ngay def parfum bi boo ko ci defee nga remplir ko ak ndox ba mu fees ñaari butéel la def nga benn bi def nga ci ndox léegi ndox boobu ngay jël sotti ci yaram bi ba mu maase ba mu bopp bi ba tànk ya ci kanam ndeyjoor càmmoñ wëlbati yépp ndox bi am parfum bi ah bu fekkee amoo parfum nga jël siddéem bu fekkee amoo amoo amoo amoo kii nga jël siddéem siddéem baa ngi foofu waaw ñu yóbbu ko tucc tuccul ko ba mu kii nga def ko ci ndox bi mu ngay sotti ci yaram bi ba mu daj am nañ ñaata sangu am nañ am nañ am nañ ñett ah sang bu set bi ak sang bi nga xam ne moo ànd ak njàpp bi ak troisième sang bi nga xam ne moom moo am parfum bi ak wala siddéem bi léegi lu ñuy def sang moo des indi perkaal bi perkaal bi fii ñu bari dañuy jël di dagg jarul dagg lu njëkk lu ñuy def mooy bu ñu jëlee perkaal bi jàppal cat bi yëpp dañuy natt perkaal baa ngi nii ah ñu natt dama ci tànk yi baax na foofu suñ nattee ba pare ba mu xam li mu am guddaay bi bu def nii bàyyil ok gis ngeen lii kenn du ko fi dindi fi lañ koy bàyyi ba pare lii jarta ñaw daal te comme ni ko gars yi def ay caayaak mbax neeg kaalaak non non jaru ko jàppal fii jàppal mu dem jàppal mu dem ba jeex ba jeex demal jeex na waa kay jeex na gis ngeen ah yéen a ngi gis bu mu yàgg gis ngeen fii lay yem ah jël cat bi mën na nekk 7 wala mu nekk 9 sans départ ci néew bi nu mu toll mën na nekk 7 bi ñaata la 9 fekkee ne ku mag a mag a mag la am yaram mën na nekk 9 gis ngeen ah lii nii bàyyi ko nii takk ba mu dëgër ñu bàyyi fii taalal gis ngeen ah jàppal digg bi foofu fii sa loxo boobu nekk taxal foofu boobu baax na waaw dama bàyyil bi dama tollale ko ci kii c'est bon baax na indi jal boobu ñaataa ngi ni ñaataa ngi ni bii bu ñëwee muy ñett teel foofu teel foofu sa loxo bi bàyyil waaw teel ñaataa ngi ni ñett ngi ni gis ngeen ñaata sër li ñaata la nekk ñetti sër teel mu ni fii waaw jarul ma koy dagg dañ ko lem ci digg bi mu tolloo ba mu bañ ko dagg waaw bàyyi na ñëw bàyyil bi yolomalal bi na ñëw bii bi ngay bàyyi mu yolom waaw yóbbul bi yóbbul yóbbul yóbbul yóbbul xëccal mu dem eh rek la leew man na ñett a ngi ni xool am na ñett tegal ni ñett yaa ngi noonu jarul dagg gis ngeen léegi sang nañ ko ba pare ah sang moo des bu leen bàyyi leen xel serviette bi serviette bi fu ñu dindi ko léegi lu tax dafa tooy suñ ko dindiwul day tooyal bii kon comme dañ ko war a dindi bii mooy ñëw bu wow beneen bu wow bu bees ñu ne nii kii daa di fii fii dañ koy bloqué kii daa di dañ bii daa di dañ ñu daal di koy teg ne gis nga ñu daal di bàyyi fii bii ndànk la ñuy roccee bi ba nga xam ne awra bi di feeñ bii moo fi des dañuy teg bii ba pare gars yi jàpp bu ñuy teg gars yi dañuy jàpp ki nga xam ne moom mooy sang bu kii jàppee benn bi kii jàpp beneen cat bi moom mooy dugal loxoom ci suuf daal di génne bi ci suuf su ko defee bii nekkaat fi léegi nag ñu jël bii wañ ko daal di fomp yaram bi ba mu set fomp yaram bi ba ba léegi nii gis ngeen ne awraam kenn du ko gis dégg ngeen foofu léegi lan moo des dañ ko war a sàng fee lañ ko war a teg sàng ko waaye bala ñu koy sàng am na lu des te indi witeen bi bu ñu indee witeen bi day génne lépp teg nii mën nañ ko dagg ay dagg yu ndaw dagg yi mooy lan nii teg teg daal teg hmm? si ngeen am nañu ndaw ah lu ñuy indi parfum bu ñu indee parfum lu ñu njëkk a def mooy jël benn parfum baa ngi ni ñu tooyal ba mu tooy asaru sujjóot yi fi mu daan sujjóotal yi day sujjóot waaw te sa waaw def tànk yi tànk yi waaw óomi waaw ñaari bëtu óomi ñaari bëtu óomi defee ñaari bëtu óomi def tànk yi ah daal di teg par kii bi mu des fii encore ci ñu ñëwaat fii lu ñuy def def coton ana coton bi kii bi witeen bi kii bi parfum bi ñu def ba mu tooy teel gis ngeen defaat defaat def ngeen ci ci poqotaan bi ah rek ñu defaat def ci poqotaan bi ba léegi pare gu ñu ngi ci witeen bi laa yaxtaaj laa yaxtaaj bil kalaam amul problème ñu def ci witeen kii parfum jël loxo ndeyjoor bi gis ngeen bii ni ñu koy defee xool leen ci diggante baaraam yi ah gis ngeen gis ngeen ñu jël beneen bi defaat ci diggante baaraam yi waaye lépp bala ñu ko ci def dañ ciy def parfum mu ngoog mu ngi nii. su fekkee néew bi dafa am fenn fu mu gaañu ci yaram bi foofu di indi deret dañuy def bu ñu ci def parfum dañuy def witeen bu bëri ñu def ko foofu bëree bëri bu fekkee bopp bi moo toj dañuy jël coton bu bëri def ko ci bopp bi ba bopp bi yëpp fat ñu jël perméable bu bëla bi mbuus bi ñu di solal ko ba bi takk lu tax balaa deret ji di génn ji foofu ci ci ci kaw kii bi waaw fekkee bopp bi moo toj dafa daanu bopp bee toj xar hmm? voilà noonu lañ koy def dañuy jël witeen bu bëri solal ko bopp bi ba mu fat ñu def ci mbuus takk su fekkee ci ginnaawam la am luy génn lu bañ a taxaw dañuy jël witeen bu bëri def ko ci suufam ba pare ñu lal fii perméable fii ñu defaat fi witeen ñu teg ko ci dégg ngeen li mu wax fii la ñuy lalaat perméable def ci witeen bu bëri fi nga xam ne foofu la affaire bi di génne ñu tollale ko fii nga xam ne diir balaa muy romb witeen bi di romb perméable bi dinañ ko paree dem suul côté affaire dara du am benn sutura lépp day am sutura
ñoom pour dara génn déedéet li jàpp def foofu bu dara di génn ndax maanaam ci su fekkee dara génnul ci suufam awra bi maanaam fekk dara génn est-ce que li jàpp def foofu par rapport De- ak suñu tedd wala subhanallah loolu kenn du ko def loolu laa dafa laaj léegi kenn du dugal kenn du dugal ci suufu nit ba pare parfum dafa saf suufu nit awraam kenn du ci def dara même bi tëdd même witeen mën nañu indi mën nañu def fii nag fii ci naq bi mën nañu ci def kii coton ñu def ci teg yi bàyyi fii mais it parfum bi witeen bi lii rek la ñu def mu des tànk yi day am day am coton comme loxo yi ni ñu ko defee noonu la ñuy defee tànk yi nii dañuy def parfum dañuy def ci witeen parfum def nii tànk yi moom tamit suufam kenn du ko ci def képp koo gis muy sang néew di def ci suufam coton mënul dara mu ngoog def nii moom tamit mu ngoog lii yóbbaale na nopp yi ngeen pare na ah léegi bu fekkee dañ koy amul amatul lu tooy waaw na ci sër bi lañ ko war a teg aw jarul ñuy yëkkati naan dañ koy teg fii non dañuy lem bii rek fii ñaar la nii la ñuy def nii taalal bi teel bi gis nga xam nga mu ngi ñëw jëlal tànk bi bii tegal foofu ci kaw def nii kii ñëw bii mooy ñëw bii na ñëw gis ngeen ah na def na def na def da ci baax na gis nga mu daal di ñëwaat acca yëkkatil fii génneel nii liy jóg lii ñëw mu ngoog gis nga lii ñëw xoolal am nañ ñaata sër mu ngoog gis nga taalal sër bi mu taalee ko xëccal foofu mu ñëw mu ngoog tànk yi tànk yi kenn du ko takk takk jeex na takk mooy ba ñu fekkee fee rek muy gis ngeen am nañ benn ah ok fii la ñuy tàmbalee bismillah gis ngeen ah jël ma fee gis nga jëlaat bi muy genn wàll bi desoon ah saroo di léegi ci kanam xaaral rek saroo di léegi mu dañ bokk gis nga gis ngeen ñaata sër lañ am déedéet ba léegi benn lañ am léegi nag gis ngeen serviette bi ah bii mooy ñëw pour serviette bi mën a deñ deuxième bi mooy ñëw pour serviette bi mën a deñ deuxième bi bii nii teel ah benn sër bi mooy ñëw benn sër bi su ñëwee ni lay def xam nga def na ñu ne nii kenn gisu ko ah deuxième sër bi ñëw ah mooy dama koy bañ a lëmas bu kii noonu mais mun nañ ko xëcc ba mu gën a ba mu gën a dëgër dugal mu wax troisième sër bi ñëw gis nga moo tax ñiy dagg di dagg di dagg jaru ko xoolal est-ce que amuñu ñetti sër ah te kenn mu ni te kenn daggu ko gis ngeen bu leen fàtte lii ah dañ koy takk léegi nag fii la ñuy njëkk a takk fii ah fii la ñuy njëkk a takk nekk benn takk ñëw takk fii nekk ñaari takk takk bi aussi yomb na ñu takkee fii takkal ma fii cat bi koy la mos takk bu mu dëgër mu war yëkkati bopp bi gis nga gis nga ah ñu takk benn ñe dañ koy dangal ah ñu ñëwaat fii yëkkati taxawal ni yëkkati aywa jàllal xëccal xëccal waaw acca wala gis nga mu dugalaat mu nekk ñaata ñett ñett nekk ñett raatal fii nii waaw fii bàyyi rek waaw ñëwaat wàññi leen wax ji ñaata ngoog ñaata takk-takk benn aywa mu nekk war a nekk juróom-ñaar suñu paree ubbil fi mu nooy ok suñu paree jël parfum bi juróom-ñaar suñu paree ñu jël parfum bi xool leen sotti ah sotti daal di pare daal di ñëw ci imam ne ko pare na bil maa ngi nii ubbil bopp bi foofu waaye nii la ñuy sangee néew nii lañ koy laxasee déedéet waaw bàyyi na waaw mun nañ ko bu fekkee ne dafa am sikkim bu gudd mun nañ ko ko peñeel mais wat kenn du ko def bu fekkee weey dafa gudd mun nañ ko dagg bu fekkee dafa amee rasta dañ koy dindi rasta moom dañ koy dindi ñu peñe ko ba mu rafet bu fekkee jigéen la dañ koy létt ñetti létt ñetti létt lañ koy létt létt yi tàmbalee ci kaw wàcc suuf bu fekkee góor nag dañ koy peñe rek fekkee kawar gi gudd na ñu peñe ko peñe sikkim bi daal ko ci defal parfum mbalaan bi non mun na ëpp ñett ah ñetti sër la war a nekk kese yonent bi loolu lañ ko defal ku def leneen nag waaye yonent bi moom ñetti sër lañ ko defal te mu ngi nii wan naa leen kenn daggu ko kenn defu ci tubéy kenn defu ci kaala kenn defu ci mbaxna yooyu ñuy def ci dëkk bi amu ci te mu ngi nii takk nañ ko kenn daggul kii bi bu dee jigéen tamit kazaalika mën nañ ko def ñett yonent bi ñett lañ ko defoon sallallahu alayhi wa sallam moo ngi nii waaw takk yi bu ñu demee ba rob di ko rob dañuy dindi takk takk yi koy tekki waaw ma ne kanam bi am na yoo xam ne dañuy bàyyi kanam bi mu tëdd loolu fan foofu caarmeele loolu si ñuy defar nii bu ñu defar nii ñu bàyyi kanam bi mu tëdd pour defar kanam gi mu feeñ loolu mooy pour mbokk yi ñëw tàgg ko tàgg bu mujj bu ñu nee ba bopp bi mujj ñu bàyyi bopp bi soxnaam ñëw ay doomam ay mbokkam yooyu ñu ko gëj a gis ñëw nuyu ko daal dem loolu rek la mais amul leneen ndax yeneen bi alayhi salaam Aboubacar fekk na ko ñu muur ko comme nii mu ñëw muri ko fóon ko ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah
bu demee ba ci armée bi dañuy dindi ñett bu demee ba ci armée li bu ñu koy dugal dañuy dindi yi takk-takk yi suñ koy suul kenn du ko takkaat dañuy dindi takk-takk yi bu fekkee amuñu luñ ko dindi dañu dagg da ngay dégg ñu ne ku am paaka ñu koy sàng nag ñaata lañu war a toll ñi koy sang mën a nekk ñett dañuy tóol chaque jour kuy duñuy tóol
waru duñu wax waruñu wax wala mën nañu wax waaw dañuy mun nañu wax kay waaye li ñuy wax rek mooy defal ma fi ndox jàppal ma fi loolu rek comme nit ñi nit ñi comme ni ñu doon defee léegi léegi lañuy wax waaye dafa am ñaar ñaari jikko ci kuy sang néew kii sang néew ñaari jikko la war a am dafa war a baax da- dafa war a am xibra ci ni ñuy sangee néew xibra mu am xam-xam bi ñaar yooyu lañ ci bëgg na baax na am xibra
non la question waaw bu fekkee néewul maanaam dañ ko indi mu dem ba commencé yàqu ba néew bi commencé soppeeku maanaam bu fekkee néew bi dafa soppeeku ba kenn mënu koo sang dañ koy tiimal dañ koy tiimal suul ko kenn du ko sang comme dafa lakk ba kenn mënu laal yaram bi dañ koy tiimal comme dafa yàgg dañ koy tiimal kenn du ko sang bu dee dafa lap nag bu dee dafa lab ba yaram bi soppeeku noonu lañ koy def moom tamit dañ koy tiimal kenn du ko kenn du ko sang dañ koy tiimal dañ koy tiimal kenn du ko laal ndax dafa feebar buy wàllaati ku ko sang day ñëw ci yow dañ koy tiimal lépp su lor amee rek dañ koy tiimal su fekkee néew bi jigéen la amul jigéen bu ko sang dañ koy tiimal su fekkee néew bi góor la amuñu góor bu ko sang dëkk bi yëpp ay jigéen la dañ koy tiimal
kii bi maanaam comme kii bi noonu nga jullee rek tiimal comme niñ koy tiimalee julli wala niñ koy tiimalee daal koy denc waaw xale bu góor wala bu jigéen bu amee juróom-ñaari at xale bu jigéen bu amee juróom-ñaari at benn góor amul droit sang ko ku dul papaam juróom-ñaari at
bu fekkee ñu takk jabar la xale bu jigéen bu amee juróom-ñaari at kenn amul droit sang ko ku dul papaam ci góor laa wax de bu dee jigéen nag ku nekk mën na ko sang waaye bu dee góor kii kii bii na muy demee bu dee papaam dundatul amul góor gu ko mën a sang amul jigéen bu ko mën a sang dañ koy tiimal kii bii kii bii na muy demee comme tiimu julli
xeer la xeer ngay jël
sa loxo
jëkkër mën na sang jabar jëkkër mën na sang jabar jabar mën na sang jëkkër saxaaba yi kan moo sangoon sang kan ali moo sang fatima abubakar ko sang soxnaam jigéen ah doom bëgguñu ko ci bu dee doom góor la mun na sang papaam bu dee doom jigéen la mun na sang yaayam waaye doom bu góor du sang yaayam Oustaz, babay ci ñetti ñetti série yi ah am na ñoom dañuy jël kii bu dee jigéen ñi daf koy def ko maanaam séer ba pare ko ko def ci Ah.
est-ce que loolu ñett sër daal moo gën a wóor ndax yonent bi ñett la waxoon sallallahu waaw ñoo ci waaw parce que yonent ñett la waxoon ba bay
ñëpp erreur ngay gën a gis ci ci Sénégal ci sàng bu koy def yan erreur erreur waaw waaw waaw waaw waaw fii li njëkk waaw, loolu bëgg na. lu njëkk mooy morgue yi ni ñu koy tabaxee baaxul loolu mooy erreur bu njëkk parce que morgue bi dañ koy def karo def ci benn bën bën comme yi nekk sunu sunu kër yi foos yi euh, duus yi sangukaay yi nekk sunu kër yi bu ñu defaree siphon bi fi ndox mi jaar xam ngeen dafa ndaw morgue warul mel noonu lu tax ndax néew bi mun na am luy génn ci moom bu fekkente ne ci lu ndaw loolu la war a jaar kon ñi koy sang ñëpp dinañ ci teg bët kon morgue bi grillage bi kiyal kan kan su fekkee defar nañ kii bi morgue bi ni ba mu kawee fi ñu koy teg dañ ko war a def ay grillage grillage bu rëy wala ñu def ci ay bant nii moo am ay espace yu yaatu def nii def nii nga xam ne néew bu ñu ko tegee lu génn ci moom ci suuf la jëm day dem kenn du ko gis nit ñi mën nañ ko sang ba pare bu fekkee am na luy génn ci moom kenn du ci teg bët day wàcc rek di dem waaye bu fekkee ne dañ ko def siphon bu ndaw boobu ci bën bën bi loolu lu génn ci moom nit ñi dañ koy gis loolu mooy lu njëkk ñaareel bi bu ñuy sang néew nit ñi dañuy vailler vient ci morgue bi ñii di ñëw ñii di génn ñii di dugg loolu kenn du ko def am na ñoo xam ne dañ kumpa rek beneen bi gën a rëy mooy souvent dañuy jox ñu nga xam ne mënuñu sang dañuy sotti ndox rek indi la daal lay tegal beneen bi mooy gis nga yi ñu doon sangee néew bi jàmpe yi saabu yi witteen bi kawar gi nga xam ne dañ ko peñe ci moom mu deñ wala wee yi day gis koo xam ne da ngay sang ñu ne la oustaz soo paree nga may ma nga may ma saabu bi duñ koy dee koy njabari jee soo paree nga may ma jàmpe yi duñ koy dee dañ koy njabari jee wala ñu ñëw ne daggal ma ci perkaal daggal ma ci da ma ci soxla daggal ma ci daggal ma ci soo paree loo bëgg ma jox la da ngeen yooyu erreur yu garaaw la am na ci ñoo xam ne sax dañuy suñuy sang néew bi dañuy ñëw taxaw seen poos ñu yor téere téere téere bi nga dugal ma ko ci néew bi ñu baale la loolu la ñuy def pour léegi ñu fay la waaye ñu jaral na ko mu jox la 200000 nga dugal ci téere bi benn téere ci biir néew bi ñu yóbbaale mu yóbbaale ko xërëm la xërëm la loolu am na moo tax ñu bëgg sa néew nga taxawu ko yooyu yëpp bañ ci am ba mu ba mu dem ci sang bi aussi da ngay gis ñoo xam ne mënuñu sang go surtout jigéen ñi nag surtout côté jigéen ñi foofu la gën a grave day gis koo xam dañ koy sotti ndox rek dangay la leer na ñi kii mënuñu dara dara dara dara dara dara dara semaine bi passé am na benn mbokk bu gaañu woon ñu woo ma balaa may yegg si man leen nañ commencé maa ñëw mais bi ma duggee ci biir morgue bi laa xam ne ñi kii ñi mënuñu sang ba ma duggee rek laa ko xam ñu continuer ba ñu pare ñu pare yàlla def ñu daal di koy yóbbu mais loolu il faut lii lii nii amul lu ci jafe parce que nit ñi ñoo fi nekk di ragal ragaloog di tiit ak di daw ak dee du wàlle ñëpp a koy def dee amul wàlle de ñëpp ay dee. da nga defe ne kii daa dee nii rek mu ko laalee damay dee déedéet du ma dee lu sama dee jot loolu mais buñ toogee nii ahkaam yi lii fardu kifaaya la. isa qaama bihi baat sa saqata anil axirin waaye bu fekkee kenn jógu ci ñëpp a yam bàkkaar te léegi foofu lañ toll nit day gaañu ci dëkk bi duñu am ko ko sang surtout jigéen léegi jigéen ñu naan ñuy wëri di wëri comme léegi ni ñuy wëree ñuy jàng kaamil xam nga léegi dañuy wër ñuy jàng kaamil léegi sax jenn jàkk yi kaamil bi commencé nañ ko ñëw leen moom ñu naan ñëw leen moom du ci bokk
Moussa moo seetlu ñi nga xamante ne suñ demee di su- di di gas xabru yi parce que keroog yoo amoon na benn affaire bu xam tey bu ñu gas dañoo bëggoon sàcc moso yi nga xamante ne moom takkeewuñ ne te dañ ko bëggoon sàcc am benn mbokk bu gis ko ñu ko indil wala lii ñu dugalaat ko foofu parce que xam naa dafa am kuy li nga wax noonu affaire yu jëlee ah kii am tamit te kii yooyu yëpp day am moom yu nekk nga ciy gis waaye lu ci mun a nekk mooy jullit bi nga xam ne moom moom moo moom moo mooy mbokk néew bi moom moo war a nekk en sécurité ak néew bi di